wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alambiyaai walmursalin sayidina wa maulana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi bokki jullit yi fi teew ci seeni jëmm ak bokki yi teew ci seeni xel di jàkkaarloog ñun ci xarala gi noo ngi leen di nuyu nuyoo ba gën a sell di leen ziyaara di leen wax asalaamaaleykum wa taala wa barakaatu di am mbégte ci jataay bu mel ni muy jataayu xam-xam jataayu fàttaliku jëmm ju tedd muy a cheikh Mouhamadul muy jataayu fàttaliku ak feeñam fii ci àdduna mu tombeek xew-xew bu am solo ci diine muy al isra wal miraaj te mooy rañaan gi yonante bi rañaanoon sallallahu alayhi wa jóge màkka dem baytil muqaddas miraaj bi muy jóge gam jóge foofa dem ba juróom-ñaareelu asamaan loolu ci lañ bëgg a waxtaan incha allah mu doon xew-xew boo xam ne lu am solo la ci diine ñu war a taxaw léeg-léeg di ko jàngat di seet nuñ ci mën a gën a jariñoo muy xew-xew boo xam ni dafa mel ni dafa tënk diine jëpp diine yaatu na waaye xew-xewu rañaan gi dafa mel ni daf ko tënk gàttal ko Muhammadul Xasali day wax ni bu ñu xoolee al isra wal te mooy rañaan bi ni mu taxawee ci diine dafa mel ni dafa xajale diggante coono yi yonent bi doon sonn ak fi ko suñ boroom ubbile bunti tawfiq ndax nubuwa gi bi mu tàmbalee ba ni fi yonent bi jógee mi ngi toll ci ñaar fukki at ak ñett mu mel ni xew-xewu rañaan gi mi ngi xew ci bi nubuwa gi amee fukki at ak nangam mu mel ni dafa xàjjale rek diggante fa ñu doon sonale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak fi bunti tawfiq ubbi ko ngir nit ñi di ko wusi ndax yonent bi sallallahu alayhi wa woote na fukki at ak nangam waaye depuis mu woote tawxiit ñu wéetal yàlla woo nit ñi ci ak jaamu yàlla la daldi am jafe-jafe bu dox digganteem ak nit ñi mu daan dundal ndax dañoo daldi indi ak mbañeel doxale ko seen diggante ak moom indi ay bundu xataal doxale ko seen diggante ak moom ba ci mbooleem ñi ko gëmoon sax xatal nañ leen yonente bi sallallahu alayhi wa sotti nañu ko am seburit ci kaw woote boobu mu doon woote képp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nit fekk na ko mu toog mu xoj ko ba bët yi bëgg a génn ngir woote bu mu leen doon wax ñi ko toppoon it coono bu ne sonal nañu leen ko ngir bëgg ñu bàyyi topp gi ñu ko topp am na ci ñooñ daanañu leen tëral ci kaw doj wu tàng ci jamono bu tàng fab aw doj wu diis tekku ci seen kaw ngir bëgg rek ñu bàyyi jëmm jooju ñu topp waaye loolu lépp rekk teewut ñu wéy jàpp ci liñ jàpp mu mel ni depuis ñu jàppalee woote boobu lañu ñu tàmbali ñàkk ñaari bànneex yi gën a fés ci bànneexu àddina yi muy bànneexu alal ak bànneexu njaboot booba lañu ko daal di ñàkk ñoom mu mel ni nag li mujj ci bundu xataal yi mooy bi yonente bi jaaxlee ba ni na dem taif ca bani saqif ngir wax ak ñoom ba xam danañu ko jàppale wala déet ñooña yéesati ngir dañu ko boole ak ñu koy sànni ay xeer ba sonal ko ba mu jaaxlee ba jaaxle daldi delluwaat nag ci sunu borom ndax lii mu ko yónnee mënu ko ñàkk tasaare tey tasaare gi jafe na lool mu ñaan ñaanam googee mu siiw googee mu ñaanal allahuma inni ashku ilayka dufa quwati wa qillata xiilati wa hawaani ala nnaas yàlla yow day laay jàmbat nii ma néewe doole ak nii ma néewe ay pexe ak nii ma ñàkkee solo ci kanamu nit ñi daal yow laa koy jàmbat anta rabbul mustadafina wa anta rabbi mun yàlla boole ñi ñuy néewal doole yaay seen borom tey it yowee sama borom ana ko may booleel ndax danga may boole ku ma sori koo xam ne su ma ñëwee dafay ñëkkal kanam su ma digganteeg moom wala danga may booleeg ab noon boo xam ni lu ma yëngatu mu échec loo ko daal ne ko waaye nag saa boo ma merewul rek baax na boo ma rekk rek baax na mu mel ni nag loolu lii bi mu amee sunu borom ngir won ko ni ko bàyyiwuma la te seetaanuma la te maa ngi lay jàppale moo waral mu fayee ko rañaan gii te mooy jëlee ko ci euh, kaaba gi yóbbu ko baytul muqaddas jëlee ko fa yóbbu ko juróom-ñaareel bi asamaan la muy wax ak moom amatul intermédiaire amatul ndaw amatul dara loolu dafa mel ni ab junjule ci ni ndekete euh, coono bu ne jàmm rek lay wundu kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu mu sonnee ñu bon xarak ba mu jaaxle ba mel ni du gag ci ko suñu borom wooyee mu tukki tukki boobu yi muy al israa wal miraaj kon ci dalal xelam moo tax suñu borom woo ko ba fa moom bañ koo boleete kenn wax ak moom la muy wax ak moom mu dellu siwaat ngir rek faye ko ko ci muñ gim doon muñ ak jihaad ji mu doon jihaad ngir jëmmam won ko ay kawteef won ko ay kiimaan won ko ay kàttanam ba lu mu jàppoon dana ko dolli lu ko jaaxaloon it dootu ko jaaxalante dajale ko ak mbokkam mu yonente ci benn jataay mu doon it seen imaam jiite leen ak julli sa fekk ne moo mujj ci yonente yi lu lépp nii ab faveur la boo xam ne suñu borom daf ko defal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir muñ googee mu doon muñ lan mooy al isra wal miraaj lañ jublu ci al isra bu ñu ko waxee mooy tukki bi yonente bi tukki jógee màkka dem baytul muqaddas loolu la ñuy tuddee al isra bu ñu miraaj mooy jóge ga mu jóge foofa dem ba juróom-ñaareel bi asamaan dem ba àgg ci martaba boo xam ne xam-xamu doomu aadama lott na ci àgg fa ngir dem na ba àgg ci dégg kii kii ji xalim ak suñu borom kon loolu mooy xajale li ñu tuddee al israa wal miraaj alxuraan nag tudd na ñaari tukki yëpp wala boog tudd na benn bi muy al wutal ko sax saaru boppam muy subhaanalladi asra bi abdihi laylan min al masjid al haraami ila al masjid al aqsa alladi baarakna hawlahu li nuriyahu min ayatina mu mel dafa tudd euh, rañaan gi waaye tudd it xikma bi tax mu di ko rañaane xikma bi mooy bëgg ko woon ay kaawteef yoo xam ne dana ko yokk yaqeen gu mu amoon day dolli mooy baatub li nuriyahu min ayatina ngir bëgg koo dolli yaqeen moo tax ñu rañaane mu mel ni kon xikma euh, rañaan gi kon weesuwul rek suñu borom bëgg woon yonent bi sama salaam ci ay kaawteef loo xam ne dana ko dolli euh, yaqeen won ko ci ay dooleem ak i loo xam ni doole jum dajal dana tuuti ci moom ci kanam miraaj bi mu junj ko ci suratu naj mi junj bi ko ci suratu nañ mi wax wax na ca leeralaal na ca lee mu waxoon ni moo tax ma di ko rañaane mu leeral ci saar wii ni loolee gis na ko muy kiimaan yooyu ndax fee dane woon li nuriyahu min ayatina waaye ci suratu nañ mi mu wax ni wala la xadra min ayaati rabbihil bugaan aay yooyu suñu borom wax ni moo tax ma rañaane ko wax ne ca suratu naj mi ni gis na ko ki man ki yooyu yonent bi sallallahu alayhi gis ci biir rañaan googu la ca jëkk mooy jële gi mu ko jële ci Makka yóbbu ko baytal muqaddas ci diir bu gàtt loolu kiimaan la mu dellusiwaat ci guddi gi jël gi mu ko jëlee baytul mu ay baytul muqaddas mu dem juróom-ñaareel bi asamaan dem ba àgg foo xam ne dooma maanaam mbindeef lott na ci yegg fa gis mboolem kumpa kumpa yi ñu ko daan wax gis malaayika yi gis aljanna gis safara gis yonente yi foofee loolu yi bokk na ci kiimaan yi ko suñu borom jublu wone a woon ndax mu dolli yàqiin gu mu amoon ca wax yu ga ñu ko joxoon boroom xam-xam yi nag am nañu ak wuute ci ràññatle waxtu waxtu waxtu ràññan bi yan jamono la am ñu ni at muy jëkk ci nubuwa gi ci la rañaan gi am ñu ni déedéet bi amee juróomi at ci la am ñu ni déedéet ci atum fukkeel ci nubuwa gi tolloo ak ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru rajab foofu la amewoon kon xilaaf bi nun lanu ci ñor mooy li sëriñ bi jàpp sëriñ Fallou jàpp ko njaboot sëriñ Tuubaa bi jàppal na ko loolu yi lañ jàpp ci juyoo yi nga xamante ne moom la borom xam juyoo ci nan la demee woon am na ñu jàpp sax ne fukkeelu at ba ak ñaar ci nubuwa gi ci la xew am ñu dem na ba fukkeel ba ak ñett wóote nañu wooye wóote woon nañu it bu yàgg loolu wóote gi ca saxaaba yi la tàmbali woon ndax gis na ndax rañaan gi jëmm ji la woon ak ruu gi wala ruu gi moo demoon waaye li nga xam ne moom la borom xam yëpp dëppoo li ëpp ci mbooloo li ñuy wax mooy jëmm ji ak ruu gi lépp a demoon muy dëppoo ak li sëriñ bi wax ci xasida boobu ñuy wax mawaahibu naafeex ni bil jismi jahraa la de ba muy dem yaram bay demoon direct kon rañaan gi ñu ngi koy limaale ci kaawtee fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mujisaat yi ko suñu borom teralee ci la ñu koy boole wala sax ñu ne mooy njobbaxtanul kaawteef yooyu xissa ba na mu demee nag ginnaaw ko alxuraan junjee ndax alxuraan lu ci ëpp day tënk waaye détail bi am na ci téere yi yu bari yoo xam ne détaillé nañu ko euh, na mu demee mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni damaa nekkoon ca xatim tëdd fa xatim nag bu ñu ko waxee mooy koñ bi koñu kaaba bi digganteem ak maqaam Ibrahim loolu la ñuy wax xatim tëddoon am ku ma dikkal bi mu ñëwee xotti diggante fii ba fii wax ne mi ngi tàmbalee ci bëli gi xotti ba xotti dani ba ci biir génnee ci moom génnee xol bi nee na ñu indil ma benn kopp or bu fees dell ak ngëm raxas sama xol ba mu set ñu delloo ko daldi wax ni ñu indil ma benn dàbba waruwaay boo xam ni moo sut mbaam te ëggul ci bax waaye waruwaay bu weex boo xam ni moo sut mbaam te ëggul ci bax la mu doon waruwaay bu gaaw boo xam ni fu ab gisam yegg dana fa teg ndëggoo nee na ma war ba dem ba baytil maqdis ma yeew ko ca buntu jàkka ja fi yonent yi daan yeew daal di dugg ci biir jàkka ji julli fa ñaari ràkka daal génn bi ma génnee jibril andil ma ndabul am ñollu ak ndabul soow dafa indi ñaari pot benn bi dafa am ñollu benn bi def soow nee na ma jël soow nee na mu ni ma tànn nga diine ji ñu la tànnal yaag saw xeet muy diine yi fitra nee na nag noonu la àndee man ñu war ci kaw alburaaq ba Jibril àgg ci premier asmaan sama dunyaa ubbilu ba mu ubbiloo ñu laaj ni ana ko kan la mu ni Jibril ñu ni ko koo àndal mu Muhammad ñu ni ko dañoo yónnee ci moom mu ni waaw dañoo yónnee ci moom ñu ni ko marhaban bi fa ni'mal maji'u jaa kon de dalal nañu ko yaatal nañu ko ñëw na ñëw bu am solo daal di koy ubbil nee bi ñu ubbee ma dugg ñu dugg foofu lañu fekk yonent yàlla ibrahim yonent yàlla aadam nee na jibril ni ma kii sa baay aadama la nuyu ko nee na nuyu ko mu daal di may delloo am nuyoo dal di ni marhaban bil ibni saalih maa ngi dalal jàmm sama doom ju baax ji di yonente bu baax bii noonu lañu daal di déparé waat dem ba ca asamaanu si ñaareel si nee na mu ubbiloo bi mu ubbiloo ñu ne ana kooku mu ni Jibril ñu ni ko koo àndal mu ni Muhammad ñu ne ko dañoo yónnee ci moom mu ni waaw dañoo yónnee ñu ni marhaban bihi fa ni'mal maji'u jaa ñépp fu mu fi àgg fu ne marhaban bihi la wax daal ni ñëw na ñëw ku am solo noonu nee nañu def nee foofu yi la fekk euh, mu Isa ak Yaxya ñaari doom yi ndey lañ mu fekk leen ci asmaanu ñaareel soos yi ba mu leen fa fekkee nee na Jibril ni ko nuyu leen ñii say mbokk lañu ma nuyu leen ñu delloo ma ab nuyoo daal cee teg ni marhaban bihi fa ni amal ma ji u jaa nee na ñu daal di jàll ba ñu dem ba ca asmaanu ñetteel sa foofu yee dañu fekk Yuusuf ba ñu demee Jibril ubbi tuddam ku baax woon defe ñu ne ana kooku mu ni mën a Jibril koo àndal mu ne leen Muhammad dañoo yónnee ci moom waaw dañoo yónnee ci moom ñu ne marhaban bi fa ni'mal maji'u jaa dañuy ubbil ba ñu duggee dañ fa fekk Yuusuf nee dafa mel ni taaru àdduna bu ñu ko xaajoon ci ba genn wàll gi moom ñu jox mu daal mu ne marhaban bil axi saalih wa nabii saalih mu ne maa ngi dalal jàmm sama mbokk mu baax mii di yonente bu baax bii noonu lañuy jàlle ba ci asamaan su ñeenteel si bañ demee mu ubbilu ñu ubbil ko ba mu duggee ñu fekk fa Idris mu ma kii sa mbokk la Idris nuyu ko nee na nuyu ko mu dalal ma jàmm euh, daal di may yaatal duggee ci niñ ko baaxoo defee mu kii sa mbokk Haaruna la bi ma di laa nuyoo daal di marhaban bil axi saalih wan nabiyyi asamaanu juróom benneel si fi fekk Moussa ba mu ubbiloo ba dugg mu ne ko kii mooy Moussa nuyu ko na mu delloo ma ab ba ñu ko wanee gannaaw ko lu jooy mu damaa xam ne eh, nguur suñu yónnee sama gannaaw aw xeetam mbooloo ma ci dugg àjjana ñooy ëpp mbooloo mi dugg àjjana ci sama xeet loolu dina may jooyloo ñu jàll ba ca asamaan su juróom-ñaareel sax ba mu demee moom itam ubbilu ñu ne ana mu ne mën a Jibril koo àndal mu leen Muhammad sallallahu dañoo yónnee ci moom mu ne waaw dañoo yónnee ci moom ñu ne marhaban bihi fa ni'mal maji'u ñëw ñëw bu baax ñu ngi koy dalal jàmm mu dugg mu nuyoo ko ko kii sa bàyyi Ibrahima la nuyu ko ma nuyu ko nee na mu delloo ma ab dal daal cay teg ni marhaban bil ibni saalih wal waladi saalih daal ni maa ngi dalal jàmm sama doom ju baax ji di yonente bu baax bii nee na noonu ñu yëkkatil ma sidratul muntaha sidratul muntaha ak déem la goo xam ne ba ma ko yëkkatalee gis naa ni ay meññatam mi ngi mel ni koppi hajar hajar nag ab dëkk la ci sa Bahrayn xul la ay ay nattukaay lañ daan natte waaye di daan rëy mu jubloo wax ne dafa rëy ba mel ni koppi hajar waaye noonu it xob ya dafa mel ni noppi ñay nee na ma lii mooy sidratul muntaha nee na foofu yi nag ma gis ñeenti dex yu feeñ ak yu nekk ci biir yu nëbbu nee na mën a jibril li mu doon nee na ma ñaari dex yu nëbbu yi ay dex lañu yu nekk ci aljanna ñaari dex yi feeñ nag mooy dexub niil ak dexub furaat hmm. nee na foofu ñu yëkkatil ma baytul maamuur gis naa ni bis bu set juróom-ñaar fukki junni malaayika dinañ ci tàbbi te ñu ci tàbbi ba génn yi duñ ci tàbbiwaat lu lépp ci kaawteef yi ko suñu borom di woon ci la bokk ak mbindeef yàlla yi ni ñu bare juróom-ñaar fukki junni malaayka dinañ ko dugg par bis te ñu ci dugg luñ ci duggaat mukk nee na ñu andil ma potu am ñollu ak beneen pot boo xam ne soow ci nekk ak potu lem nee na ma tànn soow ma nee na jibril ni ma li nga tànn de mooy diine ju jub ji nga xam ni ci nga war a nekk yow ak yëg yow ak saw xeet yaa ak saw xeet ci diine jub ci nga war nekk ci ngeen di dund nee na foofii nag la ko suñ borom wax yooyu li mu koy wax yu euh, digal ko juróom fukki julli nee na ma dellu bi ma dëttee ba àgg ca Moussa mu laaj ma ne ma ana lu ñu la digal nee na ma ne ko juróom fukki julli mu ni ma sa xeer wi ak tënuñu juróom fukki julli par bis ni ko giñ naa ci yàlla ni nit ñi nattu naa leen jëkk la bani Israël xamante ne ma ak ñoom lu ne dañ naa ko ci ñoom wóor na ma ni boo fa yóbbu juróom fukki julli yi du jàll ndax duñu ko def kon dellu ci sa borom laaj ko mu defal la ak woyafal loolu moo sax yonent bi dëpp delluwaat ci boroom ko ak woyafal su boroom wàññeel ko fukk mu des ñeent fukk mu dellusiwaat bu mu ñëwee ba ci Moussa Moussa ne ko lu ñu la wax mu ne ko wàññeel na fukk mu ne ko ñeent fukki julli ëpp na boo ko yóbboo duñ ko def nit ñi xam naa leen dama ma jànkuwanteeg ñoom bari na dellu ci sa borom mu woyofalal loo ko ñaan daan la ko nee na Moussa bi mu ko waxee loolu yonent bi sallallahu alayhi delluwaat ci boromam waxaat ko ñaan sàkkuwaat ci ma ak woyofal mu wàññi ko yeneen fukk ñaar fukk yi wàññi ko mu ñëwati ba ci Moussa mu ne ko ñaata mu ne ko fanweer mu ne ko fanweer ëpp na dellu mu dellu bi mu dëppaatee bañ bañ mu des ñaar fukk mu ñëw ci Moussa Moussa ne ko ñaata mu ne ko ñaar fukk mu ne ko ñaar fukk ëpp na de nit ñee ma gisee boo fa demee yóbbu fa ñaar mu jël duñ ko léegi demal ci sa borom mu wàññiwaat la mu dëppaat ñëw ci boromam mu wàññiwaat yeneen fukki mu des fukk képp mu ñëw ba ci Moussa Moussa ne ko ñaata la wax mu ko fukki julli mu ne fukki julli ëpp na li ma mooy boo ko fa yóbboo duñ ko def ndax bani Israël jàng ko ñoom ñoom dina daj naa ko fukki julli yi boo ko fa yóbboo duñ ko jël delluwaat ci sa borom mu waaye faral nee na mu delluwaat ci boromam borom bi wàññi juróomi julli mu des juróom ba mu desee juróom mu des daal ba ci Moussa Moussa ñaata la mu ne ko juróom mu ne ko juróom sax ëpp na juróom mu ne ko damaa dellu ba rus na ma delloo ci mu di ko wax benn baat ndekete loolu kon moom la sama borom jublu a dogal kon loolu yi mooy ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci détail euh, al israa wal miraaj mu des nag yam gis ci biir tukki boobee te nettali ko ci yeneen barab yu bokkut ak biir barab boobu ndax la ci jëkk kon mooy soow wan nañ ko soow ak akum ñoll mu tànn soow ma ñu xamal ko ne ko Euh, lii mooy diine ju jub diñ la tànnal yaag saw xeet ne ko nag boo tànnoon leneen boo tànnoon ñollu mais sa xel yi dinañu daw te doo ko waaye kon tawfeex ji mooy tànn gam tànn soow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñeenti dex ñaar yi nëbbu ñaar yi nekk ci bitti ba mu laajee ñaar yu feeñ yi ñu ne ko mooy niir ak faraat loolu nag lenn ci borom xam-xam dañuy wax ni lii maanaam gis googu mu gis ñaari dex yooyu muy niil ak furaat mooy dañ ko jubloo ne ko saw xeet sa ñu dëkkee foofu fii si ñaari béréb yu naat yooyu muy niil ak furaat danañ bokk ci saw xeet dina jàllaleel sax sa sa lii ngay woote muy risaala euh, muy mbooloo ci ginnaaw mbooloo ñu ñëw ba jàll ñeneen ñëw waaye loolu lañ ko jubloo waaye jubluwuñ sax ne jëmmi dex yi day fàqe ca aljanna di feeñ si fii loolu ñun ñenn na ci borom xam-xam la ca des mooy tukki boobu yonent bi sallallahu gis na ci àjjana ak sabara gis na Maalik mi yor sabara mu doon koo xam ni ku ñàng la ree sax du ko def yonent bi won nañ ko gis na mbooloo mu yor tuñ yu rëy yu mel ni tuñu gileem di jël ay doj di ko tàbbal ci seen gimiñ saa bu tàbbee ci gimiñ bi day sar jàll jaar ca suuf génnaat mu laaj Jibril ni ko waaw ñii ci li nekk mu ne ko ñii mooy ñii lekk alali jërëm yi te teguñ ko ci yoon noonu mu gis fa ñoo xam dañoo biir yu rëy yoo xam ni fa ñu tëdd wëlbati ko képp duñ ko mën mu laaj jël ni ko waaw ñii ñan la mu ne ko ñii mooy ñii lekk riba lekkati riba lañ ko misaale noonu jamono bu ne nit yi firaw na dañuy jaar ci seen kaw ci biir safara ñoom lekkati riba noonu la gisee ay mbooloo yoo xam ne dañoo teg ndawal ba rafet ci seen wet demaat fee teg fa mbedd mu xee ñu bàyyee fa ndawal bu rafet ga di lekk ci mbedd mu ne Jibril waaw ñii ni ko ñii mooy ñi nga xam ne dañoo am dañoo am lu leen lew ba nag bàyyi ko fa di wuti lu araam di njaaloo mu ne ko njaalookat yi am lu lew ñu wuti lu araam ñooy ñii misaal bi ñu leen ci yàlla jox ñu gis ndawal ko bu bu set wecc ba nag bàyyi ko fa di lekk mbedd noonu yonente bi sallallahu alayhi gis na mbooloom jigéen moo xam dañu dañu wékk dañu leen wékk seeni ween dañu wékk ñuy ñuy xadaal mu ne Jibril lii lu doon mu ne ko ñii mooy jigéen ñi nga xam dañuy sëy ba noppi fexe ba indi indil seeni borom kër ñoo doom kër gi jur ko nekk ci kër yi di def naka su dul noonu ba indil borom kër gi doom kër gi jurul misaal moom nii la ci yàlla wane noonu ba wan ko yonente bi sallallahu ñu takk leen takk seeni ween ñuy di xalaat lañ ko wone mbooloo moo xam ne dañuy ji mu daldi sax léegi màgg léegi ñu góob léegi mu melaat na melal mu daal ñi ñii nag ñu mu doon jégal ni ko ñii mooy ñii jihaat ci yoonu yàlla lu lu ñu lu ñu am ci ab yoon rek lu lu ko ëpp ngi leen di xaar mooy ñuy jihaat ci yoonu yàlla lépp lu ñu def rek dañ leen koy yeesu laatal mu des kon yonente bi mu ñëwee ba bët setee ba mu nettali ko waa Quraysh yonente bi dellu si jóge ci tukki bu barkeel boobu yi mbooloo teew ci yéefar yi Mut'im ibnu Adi ca la bokkoon Amr ibnu Hisham di Abu Jahl ca mbooloo ma la bokkoon Walid ibnu Mughira ca la bokkoon waaye mu ni leen jàkka ji fi laa julee gee julee fi fajar te diggante bi dinaa fi Baytul Muqaddas dinaa fi juróom-ñaar bi asmaan gis naa ay yonente muy Ibrahim ak Moussa ak Isa julli naa leen jiiti leen ñaar waakaa wax ak ñu ne kii nag di mi ngi bëgg a tëlbati nag léegi xam nga mu ne Sam Abu Jahl mel ni ku koy saboti ni ko wax léegi nuñ mel nu nu Aïssa mel yonte bi leeral ko ko ni ko Aïssa mi ngi mel nangam ak nangam ba su ma ko doon niral daal Urwatu bnu Mas'ud as-Saqafi yi laa koy niral leen mu ne ko Moussa mu ne mu ko Moussa ku la te njool la te mel nangam ak nangam su ma ko doon niral leen day mel ni kenn ku bokk ci waa Chanwa noonu laa koy niral mu ne ko Ibrahima mu moom boo ma xoolee mel na gis ma gisuma ko ma koy wër waaye loolu ñu bëgg ko ba nox daal ba ne ko léegi baytul maqdis nga léegi nu mel suñu borom wuññal ko ko mu mel ni day jàkkaarloo moom te am na ñoo fa demoon ba xam na mel waaye yonent bi sansan bi mu ko leeralee benn baat mu ko jàddee ni moo ni wax na dëgg nii la dëgg te xam ne nii bu fàllu sax noonu àgg nañ sax ci ni ko léegi ñun suñu jëgg bi demoon comme yoonu sàmm sàmm jógee te sàmm jëgg bi demoon léegi jëgg fu mu toll xanaa war ko gis bi mu ne jëgg bi nañu gën a sàmm léegi giléem gu mel nangam moo ko moo leen di jiite bés sàngam dañuy agsi ci dëkk bi ci ni ma ko nattale waaye loolu lépp nag bañ ko bañ ko déggee gisee ko noonu it taxul ñu gëm mu mel ni kon ak ngëm suñu borom boo koy baaxee nit mm-hmm. waaye luñ la mën a wax lu mu yanu yanu maanaam bu fekkee war boo ko waxoon la gën a jub day jàpp ni wax nga dëgg yaay nga wax waaye li nga wax dëgg danaan yaay nga ma waaye li nga wax dëgg day jàpp ni nga ko yaay waaye li nga wax dëgg day continuer di seet pexe yi mu war a mën a yaay moo tax am na lenn nag ci borom xam-xam wax ni xew-xew boobu bu mu amee nekk na fitna ci ñenn sax ci ñi gëmoon ndax am na ñoo xam ne fa a ëppal ginnaaw mi ngi wax doon wax ne ko jàpp dañ koy bàyyi ci biir loolu ñu dem ci Aboubacar ni ko xanaa si sa waa ji wax dégg nga ko mu ne ah ñu ne ko nee na jóge na dem Baytul Maqdis jóge na gis naa ne moom naa leen waaye moo ko wax ñu wax dëgg ñu ne ko da ngay dëggal ne jóge dem juróom leen la ma koy ëpp li xibaar bi may jox mu jóge ci asamaan suba ngoon ko jox bëgg ma kon moo gën a dëgg ëpp lii ngeen ngeen may nañ bés boobu lañ ko tuddee Aboubacar dañ tuddee Aboubacar mu nekk as-Siddiq ñu di ci jàngee juróomi leçon laa ci tiré benn bi mooy li arab di wax ba'da kulli min mihnatin minha ndekete moom la suñu fol daan wax ni ndekete bala bala nox nox daan war war ndekete balaa balaa neex fokk day metti ko kon métier bi yàlla la yonente bi sallallahu alayhi ci weddi ko bu ndoxatal ko euh, sonal ñi nga xamante ñoo ànd ak moom ndekete lim ko nar a fayee mooy sax bañ leen see wut intermédiaire seen diggante bañ doxal seen dara seen diggante woo ko ba mu ñëw woon ko lim ko woon jox ko lim ko jox kon ndekete nattu be la mu jubloon wut lépp nii mooy xéewal lay wut te gannaaw bu nattu bi jàllee it muy eh, buñ ko nattoo ba Israa wal Miraaj ñëw ginnaaw bi la mbooloo tàmbalee fàq diggam ginnaaw bi la gàddaay dem Madina ginnaaw bi mu am ay ansaar yu mu jàppale daanaka dina ja foofu la tàmbalee di dox ba nañ fi la mu doon woote lépp ñu wuy si bu nekkee ci loolu kon rañaan gi dafa doon point boo xamante ni da dañuy wiire rek jóge ci métier ya pour dugg ci ay bànneex dana ci feeñee ñu jàngee ci njàmbaare bi yonente bi sallallahu wa sallam ndax biir yéefal yaa weddi gañ ko weddi mu wóor ko ne bu waxee bàyyi lañ cee teg am na ko ba noppi teew mu mu mu wax leen rek lu wér loolu lañ cee jàng ñun mooy ndeke sa dëgg boo ko amee ba natt bi ko xam ne ni dëgg la jërul na ko bañ wax fenn waxal kuy gëm-gëm ku dul gëm waaye sa dëgg jërul na ko ginnaaw xool nga ba gis ni lii dëgg la rek amatul ay natt la fu la neex mën nga faa xaaj loolu la ñuy jàng ci déclaré gëm ko déclaré ci kanamu yéefar yooyu ñu jàngee ci it yonente bi sallallahu alayhi wa sallam julli gi mu julli ak mbooloom yonente yu ba noppi jiite leen doon seen ilimaan dañ caa dégg ni ndekete jébbal nañ ko dossier bi gëm nañ mooy ki mujj ci yonante yi te moo leen gën te diineem it mooy folli sharia yëpp benn sharia di kon danañ ko ci dégg ci topp gi ñu topp ci ginnaawam julli waaye danañ ci dégg it ne ndekete diine yi yàlla wàcce woon yëpp benn ndax ki ci mujj la yàlla jiital ci seen kanam mu jiite leen loolu day tekki ni kon benn diine loolu benn diine la yàlla wàcce woon takke gi suñu takkee min al masjid al xaraami ila al masjid ak aqsa danañ ci xam solo su masjid al saa am ci jullit yi bu juróom beneen bi nag maanaam importance su julli lañ ciy xamee ndax lu ne yàlla di daan yónni ndaw mu ñëw wax ko yonante bi bi mu demee bi war ko digal julli nag woo ko ba mu ñëw mu jox ko ko boppam kon danañ ci xamee solo si julli am léegi kon loolu mooy mujjug Israa wal Miraaj muy guddi gi Sëriñ Fallu gane àdduna mel ni ko ngëneel li ko suñu borom tànnal xam loolu yi dana tax loo xamoon ci ngëneel da nga ko dolli loo xamoon ci ngëneel da nga ko dolli koo xam muy guddi boobu la suñu borom tànnal seen fallu mu feeñ ci muy nuurun xalaa nuurin eh, doon it eh, fadlun xalaa fadlin mu mel ni eh, yeggale gi suñu borom eggalee jumaa ji ci loxoom ak jiite gi ñu ko jiite moom seen fallu loolu buñ ko nattalee ak julli yooyu nga xamante ne moom lañu wàccee ci guddi googu yi mu xëyee jamono danañ gis ne suñu borom du def dara ci ak nel mu def rek am na lu ci jublu loolu kon danañ ko ci gise danañ ci gisee yaatal gis suñ fa lu yaatal ay mbiram waxu ba ba ba frontière yi war a dox diggante nit ñi mbaa diggante sax tarixa ak tarixa mu mu bàddi ko loolu danañ ko jàngee ci bàddi gi yonente son son bàddi baaraas ci digganteem ak yonente yooyu ba lépp doon benn kon guddi gu am solo ko ñu dëgmal ko Serigne Touba fonkoon ko lool bari na xasida yoo xamante ni ñu ngi ko tënkee Kazu Rajab ci biir Nuuru daal gis naa ci ay bayit yoo xam ne ñu ngi ko tënkee Kazu Rajabin akramani gis naa ci biir Mafatihul Bichri bi sëñ bi am ci bayit yu mu tënkee yow mu rajab yi te tàmbalee ko ci yaa faadilan fadalahul xallaaxu yaa man bihi faaraxanin imlaaxu mu junj fi sëñ Fall junj bu leer loolu kon mënees na ci jàngat téeméer leçon waaye lii mooy li ma jot a jàngat li des ma bàyyi ko ci loxo yi ñi koy déglu ñu jàngat seen jàngati ko di ñaan yàlla mu def na ak dégg ak topp ak njëriñ asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu aouzu billahi min asheytaani arrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin والصلاة والسلام على sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi dawi ridwani wa tamkin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu xam naa fi may tàmbalee samay kàddu mooy man de ma jàq li ma jàq loo mooy dañ ma dugal ci diggante bu xat muy diggante sëriñ Basiru mi doon wax léegi ak Cheikh Sidil Muxtaar Kam yi war a ñëw boo jëlee yambar mu mel ne man nag moo xam ne xam-xamam bariwut te yeewuwul munta wax nga dugal ko ci diggante ñaari njuuma indil nga ko problème kon man ko am problème day la ñaareel ba ma wuutu fi ku waroon a waxtaane ci jataay bii te yàlla dogal mu am ngànt ba tax man waajaluma woon fu ma war a jëme samay wax mu doon ñaari problème waaye nag ëpp nañ ma doole di samay kilifa sant ma ko danaa jéem xëy na ci seen barke danaa fi wax luñ mën a dégg lañ si mënta dégg it booy bu ñu jégal ma ko rek te xam ne kuy nab nabi laa xam naa nag dana am tuuti ak soppiku ci ni nga jàngale ni nga jàngee waxtaan bi léegi damay ñëw ci ak jàngat dootu doon ay témoignages yu may jële ci mag ñi ndax dajale ko fi yombul ci diggante bi waaye jàngat su gàtt rek lay doon ci fi sëriñ Basiiru la wax ji léegi rek ci Cheikh Mouhamadul Fadil bari na lu ñuy waxtaanee Cheikh Mouhamadul Fadil lool waaye dafa bari nag wet yoo xam ne dañ koy fàtte bu ñuy waxtaanee Cheikh Mouhamadul Fadil te muy wat yu am solo te Serigne Bassirou tàmbali koo junj léegi ma bëggoon li may jël kàddu gi li muy néew néew ma jëme ko foofu kàddu yi xam naa yu gàtt rek lay doon ñu jéggal ma waaye analyse bu gàtt lay doon mooy niteeg Cheikh Mouhamadul Fadil ci jëmmal ittey sëriñ Touba ji nga xam ne moom la doon mott mottali ci laay indi lu tuuti rek benn seetlu bu gàtt xam nañ ne Cheikh Mouhamadul Fadil nettali na fu bari ni ñuy jote ndigalul jumaay Tuubaa ji ñi di mag te fekke woon ko ñëpp itam gis nañu ni mu ci taxaw woon ñi di ndaw te fekke wuñ ko dégg nañ ni mu ci taxaw woon waaye bi jumaa ji sottee nag doon tabax bu toll ni mu toll nekk ci dëkk bu toll ca nam tolloon ca jamono joojee nga xam ne ak tabax bu rafet sax nekku fi woon sëriñ bi dafa am ay jumtukaay yu mu jëfandikoo yoo xam ne nag xel mu rafet mu ak koo xam ne ku mën a gouverner la ku mën a prévoir ëllëgi la muy doxal la des na ko xamee foofu mu bëgg nag jëmale sama jàngat foofu ku ne xam na ne jumaa ji bi ñu ko tabaxee ba noppi mbooloo mu fees jumaa ji amul ci dëkk bi te jumaa ji war nañ fi julli ajjuma te war nay fees dëkk bi itam condition yi fi war a dëkkee matagutoon te nit ñi war nañ fee dëkk ba nekk mbooloo moo xam ne day dëppoo day nekk jamaatan tuqiim as-salawaati al te ban yaa xakim jooje di ñëwaat foofu nag am na stratégie boobu fi jëfandikoo foofu rek laay jëw tuuti ku ne xam ne bii ñu tabaxee jumaa ji ba noppi dëkk bi nag war naa nekk ab dëkk lan la njëkk def mooy jumaa de soo ko tabaxee ba noppi ña fay dugg am na nu ñu war a mel mooy dañoo war a laab kon ndox war naa ñëw ci dëkk bi mu daldi njëkk demande demandé forage forage ñëw ñu indi ndox mi ba mu egsi ci jumaa ji robinet di xel mu doon njariñ loo xam ne luy law ba faaw lay doon ndax ku ne xam na importance bi nga xam ne njariñ ndox am na ko ci diine islaam am ko ci jëmm nit rek bismillah ñu noppi ci mu des ab dëkk soo fa bëggee dem te bëgg waxtu sàngam fekk la fa da ngay fexe ba dem nga jàppandi mu ko ay yoon ñu jële aw yoon ndakaaru andi jële aw yoon jolof andi jële aw yoon saalum andi jële aw yoon euh, njàmbur andi mu ne nit ñi buñ ñëwee toog di xaar waxtu rek doyut war naa am lu luñ fi nekkee ba waxtu jot mu rëdd ab marché woote ko ajjuma nit ñi di fi daje mu ñaan fa ñaanam gu barkeel gi nga xam ni moo waral ba fii ñu toll foo tudd marché Ocass waxatuma ci Sénégal waaye ci àdduna ñëpp xam ko nit ñi dafa daje di sakku wërsëg bu lew bu waxtu julli jotee ñu mën a ñëw ci jumaa ji woote gi mu ko woote woon ajjuma ci jamono yooyee bëggoon bu mbooloo mi dajee duggandoo ci jumaa ji bu fees waaw muy noonu ab dëkk su amee aw yoon am courant am ndox xanaa léegi dëkk daal di jàppandi ñu daal di sàkku nag baar bu fajukaay ñu indi fi infirmerie d'état bi nga xam ni moo fi nekkoon mu des wàllu jokkalante ñu daal di indi poste télécommunication bi nga xam ne moo nekkoon ci dëkk bi nga xool stratégie bi nga xam ne moom la doxal fexe na ba lépp luy waral ab dëkk doonub dëkk ñu di ko tudd ci dëkk yu mag yi fexe na ba ñëw baax loolu lu muy sabab sabab na mboolem taalib bi yëpp sa war a tuxu ñëw baax kon nag bu ñuy jàngat ay jëfam ak ay meloom ak ay jikkoom war nañ ko boole ci li ñuy jàngataale te bañ a yem rek ci xarbaax yi ak kiimaan yi lii kat du kiimaan am xel mu rafet la ak xam-xam bu wér bu rafet waaye mu jaare ko nag ci ay yoon yoo xam ne dana tax yii sabab yii tax nit ñi mën a nekk ci dëkk bi ba mën a dundal barab bu tedd bii nga xam ne moo doon liggéey waay juróom ba mën a sotti kon bi mu fexee ba sabab yooyu yëpp ñëw itam mu ëmbal nit ñi yërmande yoo xam ne dana tax bu ñu fi nekkee du ñu am genn jaaxle loola bokkoon na ci yomb gi nga xam ne yombaloon na ko boppam ba fu waay jóge boo dikkee egsi ci moom te itte joo indi ci moom bu dee itte ju ñuy faj ci poos mu faj ko ci poos bu dee itte ju ñuy faj ci ñaan mu faj ko ci ñaan dana tax taalibe yépp sa war a dëkk ak moom te dëkk ga ak moom la ko ca intéressé moom mooy ñu dundal dundalal Sëriñ Tuubaa jàkkaam jii rek bokk na itam ci ay jikkoom yu rafet yi mu doon wax léegi tab googu nga xam ne tabe na ko ci alal ak tab googu nga xam ne tabe na ko ci daraja may na ko ak dundam lépp fu ko nit mën a dégge sopp ko te boo jaxasoog moom doo ko bëgg a tey ñàkk waaye may na ko gannaawam mboolem fu ab Sénégalais nekk am na loo ko jàppe xel dafa am sëriñ buy bañ fii kuy wax bàyyi xel am na loo ko jàppe xel ndax lan ndax bu fekkee dangay ndaw lu mel ne man xëy na mos jëflante ak moom mu sa mu baa saratan itam jëflante na ak say wayjur wala mu jëflante ak sa maam ci loo xam ne dana tax nga bàyyi ko xel gis ngeen turandoo yu bari yii ñuy wax bari na ci yoo xam ne xar baax yu ñuy nettali taxut dégg ne taw tawaloon na waa dëkk sàngam taxutoon xam nga lu tax jëf ju rafet ju mu jëfaloon ju mu jëflante woon ak say maam wala mu jëflante woon ko ak say baay walla yow ci sa jëmmi bopp sax sabab sa la andi àdduna mu bokk jëfa ju rafet yooyee bokk ci jëf yooyee tax na nit ñi jàppee ko nii ñu ko jàppee ba tey ma daal sëriñ Ndaam samay kàddu du ci gudd ndax xëy na waajalu ma ko woon waaye li ma bëgg tënk samay wax rek mooy ñu bàyyi xel ci ne sëriñ bi li baatin bi doon bari bari bari bari li xam-xam bi doon bari bari bari li wilaaye gi doon bari bari bari bari teewul nag daana jëf ay jëf yoo xam ne nit ñi war nañ ko cee mën a roy ñuqi joxe moom ku ne mën na ko xol bu ko attan ak bu ko attanut am waaye ku ne mën na ko dimbali nit ku nekk ci ay jafe-jafe itam kilifa yu bari mën nañ ko ñaata nit la sax Mouhamadul Fadil dimbale ci ay jafe-jafe génn ci ay jafe-jafe ku ne xam na ne nit daana yor loo xam ne sax lu yoon di bañ la ñu téye ko mu ne Serigne Fallou moo ko moom buñ dikkee ci moom danaan waaw maa moom waaye nag boo nee maa ko moom bañ delloo la sa yëf nag dana la yedd ba bu ëllëgee dootoo ko defati loolu mooy dimbale na ku ne ci nu ne tax na nag mm, jikko yu rafet yooyu mu amoon te mënees ko cee roy maa ngi bàyyi la xel ñi nga xam ne dañuy waxtaanee ay meloom ak ay jikkoom ci bisam bu tedd bii ñuy bàyyi xel jikko yooyu mu yaakaar naa ne moo ëpp solo ñuy waxtaane li nga xam ne ngëneelul suñu borom la loo xam ne daf koy jagleel ku ko neex te du jagee ni kum neex mu roy ca kooka am na ca ba doyal waaye nag takkaayoo ne jikko yu rafet takkaayoo ne melo yu rafet takkaayoo ne itam melo yoo xam ne suñ ko jàngalee nit ñi dana gën a am njariñ ci nit ñi te danañ ko gën a bàyyi xel itam ne lii kat bokk na ci li ko may lii mu am tey ak cofeelam ci sëriñ Touba ak muritam gu dëggu ak tabam ak lawetam ak mën a dimbaleem doomu aadama ak yaatu dënnam ak xajoo nit ak xajoom nit ñi xajoo seeni bang-bang ak yaatalam ni ko sëriñ Basir waxee léegi ak yàkkaleem ak dogoom gi nga xam ne am na ko ci liggéeyu sëriñ Touba bi ba mu sotti ci lay ci loxoom ak organisation bi nga xam ne nag surtout organisation bi nga xam ne moom la defoon ci liggéey bi dañ delluwaat ginnaaw tuuti xool ni nga xam ne noonu la organisé woon liggéey bi am na ci kilifa yi ñoo xam ne gas suuf rek la leen santoon sëñ Abdourahmane Mbar moom la ko daan def loo am na ñoo xam ne teg rek jël ay mulon yi ñu war a tabaxee jumaa ji teg rek la leen di def loo am na ñoo xam ne toj ay xeer yu sew lañ leen di def loo am na ñoo xam ne root lañ leen di def loo am na ñoo xam ne dañ leen di sas ñuy indi li ñu war a fayee liggéeykat yi am na ñoo xam ne am na ñoo xam ne nga xam ne lépp dañ koo nos ba nga xam ne ñaan ñu ne xam nañ lan la war a taxawee kon organisation it war nañ ko jàngee ci moom te muy lu am solo loo xam ne dana jàpp ndal dundug doomu aadama dana woyofal itam euh, aw doxinam kon daal war nañoo jàngee ci moom organisation war nañoo jàngee ci ñoom prévention ci lu dikkagut ak nan la fexe ba bu dikkee sax war nañoo jàngee ci moom itam taxaw temm ci tey nit ñi taxaw temm itam ci seeni bëgg-bëgg waaye taxaw temm itam ci lu leen di aar taxaw temm itam ci lu leen di musal yëg responsabilité bi nga xam ni moom la suñu borom gàcc ci say loxo te yaakaar naa ne wàllu kooku booñ ko ci xoolee du ci yées kenn kon daal man sama jàngat sëriñ Daam ma sañoon ci lii rek laa koy jëmee maa ngi jégalu nag ci kàddu yi gàtt yi di doglu ngànt itam dama dugg ci diggante bu xat boo xam ne gëlëm loo na ma euh, muur na sama xarit ba mënumaa wax waaye maa ngi jégalu lépp lu dëng ci wax ji nañ ma ko jéggal lu jub rek laa bëggoon euh, di dellu di sant sunu kilifa yu baax yi nga xam ne ñooñ jox kàddu gi te xëy na xool diggante sëriñ bi ak way jur yi rek moo tax ñu def ko waaye du sunu xam-xam du sunu uh, mën a wax du leen kon nag ñu ngi leen di delloo cant bu baax di leen gërëm di baalu àq itam ci kàddu yu gàtt yi ñàkk a waajal rek la xëy na bu beneenee des na ko waajal mu gën a gudd gën a nosu gën a am solo wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu